alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rahimallahu an ashaabi rasulillah waqad laaqu kulla mararatin xarra li yasilu diinullahi ila kulli buqaatin wa arwa humu shahidu badran wa qaybara baadaha wa yowma xunenin wa dima utu sabibu alhamdulilahi mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla tawféex ah, di ñaan yàlla yàlla yàlla nangu suñuy koor nangu suñuy ñaan ak suñuy nawaafila ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbooleem mbokk julli yi eh, di leen ziyaara ci weeru koor wi di nuyu mbokk internet yi ak képp koo xam ne rek yaa ngi suivre chaîne bii di Mindset fépp foo mën a nekk ci kaw suuf ñu ngi lay nuyu di la ziara euh, fas yéene continue ak yéen waxtaanu koor bi nga xam ne ñu ngi koy defandoo ak saay su nekk di ñaan yàlla yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp ba tey ñu ngi ci fukki fan yi nga xamante ne fukki fan yi yërmande la ndax koor comme ni ko yontu bi sallallahu alayhi wa sallam waxee njëlbeen gi yërmande la digg bi njéggal la mujjantal gi goreel la euh, ci safara <coughs> waaye saay su nekk rek ñuy jàngale yërmande yàlla ci borom bi ak yërmande ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xeet bi ak yërmande goo xamante ne war nañ koo am ñun suñu diggante moo tax alxuraan dafa ne wattaqullaha laallakum turhamun te koor gi ci la ñu mën amee ragal yàlla waaye yàlla nee ragal leen yàlla ragal leen yàlla su ko defee rek ma yërëm leen kon koor gi nga xamante ne moom la yàlla sant ci la ñuy amee ak ragal yàlla ci la ñuy amee taqwaa waaye ci taqwaa gi tamit ci la ñuy amee rahmatu gi ba léegi nga xamante ne yàlla dafa wax ci alxuraan ne wa rahmati wasiat kulla shay'in fa sa aktubuha lillazina yattaquuna mu ne sama yërmande lépp xaj na ci maanaam yaatu na ñeel ñëpp yaatu na wasiat kulli shay'in waaw waaye nag fa sa aktubuha lillazina yattaquuna dinaa ko bindal gaa yi nga xamante ne dañ moom ragal yàlla waaw kon yërmandeeg yàlla gi nga gis saay su nekk rek dafay ànd ak taxuwaa gi waaye loolu mooy nit loolu mooy nit yàlla yër mooy gën a fësal yërmande yërmande goo xamante ne yàlla fësal na ko ko euh, def na ko ci moom ndax euh, yàlla da koy sant pour mu def dara ba pare di ko dimbali ci ci def gi moo tax mu yónnee ñu yónti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa la ne laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum bil muminina raufun rahimun gis nga raufun rahimun yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ñu ko envoyé mu nekk cadeau ci ñun waaye nag yonent bi tamit nekk raufun nekk rahim nekk ki nga xamante ne mooy ki nga xam ne moo gën a mën a yërëm ci mbindeef mi moo tax ba tey yàlla di wax yonent bi ne ko waxal gaa yi nga xamante ne dañuy yàq ci kaw suuf ñi nga xam ne dañuy yàq seen bopp buñ naagu buñ buñ tàyyi maanaam buñ découragé ci yërmande yàlla waaw saay su nekk rek yàlla mën naa andi yërmandeem waaw yàlla yontu bi yàlla di ko wax naan ko xul yaa ibadi alladina asrafu ala anfusihim laa taxnatu min rahmatillahi waaw waxal gaa yi nga xam ne dañuy yàq seen bopp wala dañuy yàq ci kaw suuf buñ naagu mukk ci yërmande yàlla ndax saay su nekk rek yërmande yàlla mën naa ñëw ndax yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nettali na benn waay ca jamono banewu Israil waa joo xamante ne dafa daan dafa daan wër rek di rey nit ñi agresseur la woon boo xamante ne dafay rey di rey ba rey lu mat quatre vingt dix juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent ba mu ñëwee ci benn làbbe di ko laaj ne ko ndax man su ma tuubee yàlla dina ma jéggal dina ma yërëm waa ji ne ko ah yow de boo tuubee yàlla du la yërëm yàlla du la jéggal ndax li nga def dafa foor yàlla ay waa ji nag comme làbbe bi wax na ko loolu mu daal di rey moom muy ci muy centième bi mu jóge fa dem ci beneen làbbe di ko laaj ne ko man de dama euh, rey juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent bëgg a jéggalu dem laaj benn làbbe mu ne ma soo jéggaloo yàlla du loo jéggal ma daal di koo rey moom mooy téeméeréel bi waaye nag ba tey yow maa ngi lay laaj ndax su ma jéggaloo yàlla dina ma jéggal waa ji nag axakay boo jéggaloo yàlla mën na laa jéggal ba tey ngay gis yërmandek yàlla foofu waaye boroom xam-xam yi am na ñuy wax sax naan waaw waa ji bi mu koy wax dafa xam yërmandek yàlla fi mu toll wala dafa ragal moo tax mu daal di koo tontu loolu waaye lu ci nekk rek lu ci mën a am dafay fësal yërmandek yàlla ba tey waa ji labbe bi ne ko da dem dëkk boo xamante ne mosoo faa mooy yàlla nga dem daal di tuubee foofu boo fa tuubee rek yàlla daal di laa jéggal waaye mu daal di génn dëkkam di dem di tuubi ji far yàlla jël bakkanam ci yoon bi bi yàlla jëlee bakkan bi ci yoon bi mu daal di faatu léegi nag malaaka yi nga xam ne ñoo war a yóbbu jaam bi aljanna ak malaaka yi nga xam ne ñoo war a yóbbu jaam bi safara di ko xëccoo ñi ne ko kii da doon tuub pour dem ci yàlla ñi ne ko kii lim def ci lu bon léegi nag yàlla daal di yebal malaaka mu daal di leen atte ne leen xool natt leen dëkk ba nga xam ne moom la jógee ak dëkk ba nga xam ne moom la jëm di tuubi ji su fekkee ne dëkk ba mu jógee moo gën a jege ngeen xam ngeen àtte ko ci dëkk boobu xam ne kon ñu àtte ko ci yu ñaaw yam daan def waaye su nekkee ci dëkk ba mu jëm pour tuubi ji moo ko gën a jege ñu daal di ko ci àtte ci dëkk ba nga xam ne moom la jëm nga xam ne kon tuub na ba pare waaye bañ nattee ñu gis ne dëkk ba nga xam ne moom moom la jëm moo gën a jege daanaka benn sepre maanaam vingt centimètres yàlla daal di ko atte ci yërmandeem daal di ko dugal àjjana moo tax yontu sallallahu alayhi wa sallam di wax naan inna lillahi mi ata rahmatin yontu yàlla Muhammad dafa ne yàlla am na téeméeri yërmande mu ne téeméeri yërmande yooyu benn kese la si yàlla wàccee ci kaw suuf te ci benn boobu yàlla wàccee ci kaw suuf ci la jinne yi ak nit ñi di yërmantee ci la waajur di yërëmee doomam ci la rabu àll yi di yërëmantee kenn ku nekk ci lay yërëm sa morom mu ne ba keroog yowmal qiyaam ci la yàlla di doog a wàccee juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñeent nga xamante ne kun yërmande yàlla yaatu na kon ñu ngi ñaan yàlla ci barke weeru koor bi yàlla yàlla euh, sa mbërtër yërmandeem suñu kaw yàlla yàlla nangu suñuy koor yàlla yàlla nangu suñuy nawaafile seen mbokk la woon seen xarit Euh, Oustaz Alxaaji Diouf moo doon euh, saafoonteeg yéen di nafarandoog yéen ci euh, weeru koor gi di ñaan yàlla yàlla yàlla nangu lépp di nuyu képp koo xamante ne rek mu ngi suivre Mayenne 7 beneen yoon asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.